parce que on a vu, on a vu cette on a vécu cette expérience mooy que ni dangay gis un responsable de du football sénégalais qui est au niveau des instances internationales mais il n'est pas impliqué dans la gestion du football sénégalais donc du coup am na rôle yoo xam ne mu ngi ko joué mu war ko joué du ko joué tey quel que soit sa nu mu mënti demee Fatma Samoura c'est une sénégalaise kooku kenn mënu ko dindi mais il el n'est pas impliquée du tout ci lu jëm ci wàllu football sénégalais. Augustin Senghor bu fekkente ne c'est vrai c'est un ancien président il n'a pas la même casquette que que que Fatma Samoura suñu ko ne non non léegi bàyyil fédération wala moom mu jël décision mu ne moom du nekk du nekk mu dem mu bàyyi fédération mu dem au niveau de la CAF il va se concentrer sur li nga xamante ne moom mooy CAF xelam du nekk trop ci football ci football Sénégal man pour man dafa war a euh, dafa war a dafa war a dem euh, ñu xool mu dem mu expéri mu am ci expérience d'abord être à la CAF et être au niveau de la fédération ñu xool ce que ça va ça va donner ça parce que on nous c'est la première fois ñu koy am. ñu expérimenté président la dernière passe décisive. non c'est-à-dire que de décider. non c'est à lui de décider. Mm-hmm. Maintenant, s'il amène sa candidature, on va voir. Quel est le meilleur profil, avec l'harmonie arrangée, avec Mais dire qu'aujourd'hui, il a fait 3 ans, il a fait 4 ans, d'abord, hmm. d'accord, il peut faire autant de mandats qu'il veut si les hmm. textes le lui permettent. Tout à fait. Pourquoi on veut aujourd'hui remplacer quelqu'un Non, pourquoi vous voulez aujourd'hui remplacer quelqu'un qui est meilleur que tout le monde Tout à fait. S'il n'y a pas un, un, qui est meilleur que lui, il peut changer. Mais s'il y a d'autres qui sont meilleurs que lui aussi, il faut changer. Tout à fait. il faut que il il faut que ñu clair il ne waxoon na lii. Euh, euh, euh, ah moom moo waxoon nag non je ne sais pas man looloo xew Sénégal man eh, loolu. non non eh, xew Sénégal de. je dis wax waxeet. mais je dis kan moo wax waxeet. wax ah dama ne. je dis looloo bu mu dugg ci loolu. man loolu laa koy conseillé Cheikh tey xale yi bari juddooguñu. mais da nga waxoon ne da ngay dem. ma ne. Euh, euh, euh, musu ko sa saa yi ma toog. voilà yenn saa yi ma toog waaw man yenn saa ma damay dem yenn saa yi ñu ñu ñu ne ma toogal ak lu ci mënti nekk je ne suis pas je ne serai pas indispensable. mais nag que da dem par la force ak da toog par la force aussi. loolu du wax man waxuma force de. xam nga man li may wax xam nga man lan laay wax waxuma force de. merci président bi ñu dama ne xam nga nit ki tamit dëgg dëgg texte yi il faut mu leer texte yi permettre na ko pour mu am beneen mandat. waaye man dama wax ne man li may wax mooy benn premièrement waxoon na ko loolu na nit da nga am lu sa kàddu te deuxièmement tey jii mu ngi au niveau de la CAF bu fekkee ne dëgg-dëgg vice président boo